lool diggante sénégalais ak gambien fii léegi waxtu rek ci ndaje ñaari équipe yi ca Coupe d'Afrique des Nations. moo dee nga ñëw su leen ne rip Gambie rek nga ñëw ñëw yekkal la añ ñaata nga may dóor. boobu lañ lay jox. soo paree nga ñëw ñu naan ataaya. fii nag lu yéeme nga fi gis kii ñu dippee Ablaye moom doomu Gambie la mais Sénégal lay supporté dafay sax ànd ak i reetaan suy wax ni mu bëggee marché bi demee. Sénégal ak Gambie kuy gagné. Euh, Sénégal. maa ngi nii. Hmm. maa ngi fii Dayir Kumba rek waaw waaw. ñaata la waaye nag bu weesoo Ablaye jafe na nga gis fii ku supporter Sénégal jaadu na ndax ñoo ngi ci Gambie ñuy jàppale seen réew ñoo fi ëpp. mooy gagné waaw ah, Gambie moo gagné di Gambie dafa win 4 0 4 1 2 3 4 Gambie 4 Sénégal 0 waaw. Gambie moo mën. ah, ah Sadio Mané du mun a play dafa am jël bu ndaw ndaw ndaw ndaw la am du mun a play du mun a jouer. <laughs> moom kay ah, du mun a jouer ñun suñu dañoo yore tap tap rek góol bii rek si bal bi rek. Ah. waaw dañoo win. Gambie ak Gambie kuy gagné. Gambie tout nord. tout nord Gambie tout Sénégal zéro. Gambie moom équipe la bu ñu sonal la ci at yu mujj yi lundi bi nag occasion la pour wan leen ñan ñooy les champions d'Afrique en titre.